yëg-yëgoo bi bokkoon ci dialogue politique bi ma ngay xamal yéenekaay bi ne ñoo ñëpp ci yem sénégalais yëpp ci yem ñoo ko gënaloon ñëw ci redécoupage administratif bu tëngeej di rëddaat gi ñeel di waanu tëngeej yéenekaay bi ne séddalem bukki nag ba ko Umar Gueye defee moo taal ay wa dale ko Bambilor jaare yenn kër njaayloo jaxaay kunun askan way tund ànd yooyu yëpp ànd benn gis ne jëwriñ ji daal dafa bokk ci bi ba noppi bëgg a wëlbatiku doon arbitre maanaam daal di ràcc jëmee booram source a moom xëyee leneen di ki war a wuutu juge Samba Sall ak li nga xamante ni mooy pal gi ñeel kilifa googee yéenekaay bi nag laaj ba mu def mooy ndax président Sall ci fànn woowee day forcer rek def tànne fam li war a laaj bi mooy yéenekaay bi dafa jàpp ne la koy yoon wax moom président de la république mooy faaw mu convoqué woolu conseil supérieur magistrature ngir pal googee ndax nag ci lu wuuteeg tànneefu magistrat instructeur yu tribunal tribunal yi tànneefu doyen des juges ñu ne faw xalaatu conseil supérieur magistrature wàllu politique les échos dalal madame le ministre Zahra Iyane Thiam lu ñeel mbootaay gi di Benno Bokk Yaakaar mu ne naam ambition du lu ay choc bi di jonjoo naka noonu waaye nag warul njeexite ci li nga xamante ni mooy intérêt général moom ci wàllu politique mu ne du xool kanam waaye ngëm-ngëm ak pasteefu lay demee ca nag mu ne lu jëm ci wàllu pasteefam lu su ko tàqale ak bëgg-bëgg gi mu am ci réewum Mourchid Yane Thiam yàlla na ko sunu borom dalal ca loolu li wolof naan yennkati xidin da yëgoo ndax nag ay warooy gis-gis seen biir waral ministre intérieur wooluwaat leen démb les échos ne ministre Antoine Diome mujj na nag peeral bomb bi ba mujjul kalaate imaam ya gindiku nanu démb ci biroom signé la fa yéenekaay bi méngale aku pacte de non agression enfin libre noo ne la soleil xëye tey ak ñibbisi président Lamine Diack di lu dugal am peex ak cant gu rëy ci njaboot gi soppe yi waaye askan wi deful nag benn déclaration bi mu yegsee jaare en France la mu yéene woon rek ñu ne moom kilifa gi mooy su yegsee dem ziyaari xabrub ay waajuram waaye ziyaari magam dib ancien entraîneur football Alioune Diack observateur ñëwaat ci na mu yegsee démb nag moom kilifa gi ñaari doomu jigéen ca wet ga na ko noonu président bu jaraaf Cheikh Seck njaboot gi gërëm bu baax nag jaraafam Ndakaaru état Sénégal ci jàppale gi ak ñi ko def ñëpp ci suuf kuréel gii di collectif des amis de Lamine Diack jaare ci président ba Majib Sène ñoom ne dañu koy ba mu dallu giseeg njaboot gi waaye seen yéene mooy fan yi nu dëgmal amal am ndaje ndaje moo xamante ni dina may moom président Lamine Diack mu yëkkati kàddu gërëm waa Sénégal leneen ci yéene kaay yëpp projet libération ngir wane ni projet bi demagul dikkagul ne première pierre ba xeer wu njëkk wan na fa teg sax daa mujj ne mër ca mboy ga ca 55 hectares yi ñu ko daggal ca mbojeen Ibrahima Niang bu forum civil Mbour ne du machine du brique du ay ouvrier ca chantier boobee lu bari ca suuf sanu fa jëlit ñu ne suufa baykat yi la ca ba fii du ca kenn ku nu jox yi ndàmpaay wàllu wér-gu-yaram source a ñëw ci njaaxum gu mu ne dafa xew ci clinique ca Touba Mbàkke benn ci ancien immigré bu entré foofee ndax suukar su wàcc lool ca deret ja 22 ba 26 avril bii ñu génn la woon infirmière ba fa nekkoon garde butéel ak sérum glucose 10 pour cent bu périmé wees àpp ba ñeenti weer ci ginnaaw la ko mu ne moom malade ba dafa liir notice bi ci la sàkko ñu dakkal butéel ya ci enquête bi nag ba nu laajee infirmière bi ci loolee nga xamante ni mënoon naa rey boobu malade waxu fa lu dul naan seetluwul woon ne àpp ba wees na rax ci dolli malade ba dafa crise bi nu koy taxaw wàllu lamb sunu lamb ne Gris Bordeaux ñetti sas la am ci dajeem ak Balla Gaye 2 benn jël revanche am ñaar jëlal revanche Tafa Gueye ñett stoppé baare Balla Gaye 2 dina ko mënam déet li ci kanam rawuti gët moom Balla